Hey,

hélas hélas président président mu ngi noonu dala dala On est en direct sur la page officielle du président Ousmane Sonko. Diallo, viens commenter s'il te plaît. la situation ce qui se passe. ce qui se passe c'est que nous sommes au barabu Serigne Touba. Euh, fi nga xamante ne Serigne Touba def na fi euh, une euh, trois jours fii nii ci Taïba Taïba Ndiaye. fii la ñuy ñëw. fii la ñuy ñëw président Ousmane Sonko waroon dugg fii nii comme ni ngeen koy gisee noonu mu ziar fii parce que bërëb bu sell la il paraît que Serigne Touba ci boppam ñëw na fi def fi ñetti fan fii nag la la la ñu nekkoon ah donc euh, fii la ñu euh, sànni tout à l'heure les lacrymogènes euh, ngeen koy gis noonu gis ngeen ko en live c'est ce qui se passe présentement fi nga xamante ni moom mooy fi nga xamante ni moom mooy Taïba Ndiaye ah donc ñu ngi Taïba Ndiaye dugg nañ Taïba Ndiaye gazé nañ équipe yi gazé nañ convoi bi à la fin ñu tere leen dugg biir Taïba Ndiaye après quand le convoi s'est replié pour ñëw fi nga xamante ne moo di bërëbu Serigne Touba fi nga xamante ne def na fi ñetti fan ah di wéet ak boroomam c'est président ñëwoon fii euh, pour euh, euh, ziar si barab bi waaye itam sàkku si si ñaan waaye fii itam lañu ñu continuer waat ñi nga xamante ni moom moo di convoi bi présentement président Ousmane Sonko mi ci biir barab bi ah mi ngi ci biir bërëb bi ah, donc loolu moo fi amoogum leen war trop. leen war trop merci. voilà gars yi gis ngeen Abass laa leen Abass laa leen tàllaloon micro bi noonu moo doon wax ak yéen voilà léegi présence man moom mu ngi kii nii ci béréb bii nii waaw mu ngi ci béréb bii nii présence man moom mu ngi ci béréb bii nii. bu ñëwee ils n'ont pas payé les gens. voilà Abass laa leen yéen a. bu doon kii. c'est bon c'est bon. ana kii. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kay kay mooy yaay fële.

الحمد والشكر لمن كل به سار له ردا دون سخف عند صرصار له الثناء ورضوان بلا صار مسخى جني من بال ديمنا لله كلي لدى أبار مكرومة منها ارتحرنا وفيها جم مهزا إلا الذين إلى صرصار خصخصدوا زيارتي فاروه دار أو زار نيجي توبال يا رسول الله ديكو جيغلو بيب بكار بون خم اك بون خمو دي ñaan ci barkat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci barkat serigne touba ci barkat suuf ci tedd si serigne ousmane sonko mi yow yàlla ñu ngi ñaan mm. élection yii nu jëm mm. yal na ci am ndam te bu ci amee ndam yal na seddu guy amiin bu seddu yal na jariñ mboolem ko xam ni am julli la ci kaw suuf rawatina waa Sénégal ñu ngi koy ñaan ci barkab Sëriñ Tuuba di ko ñaan ci barkab allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa ala ali bayti na ñëpp ne amiin. amiin da ngay falu de. di nga falu de moom. ba nga ñëwee Téeméer yaa nga falu. mën na ko mu jàll mën na ko mu jàll. ñaanti loo soxla. président ñaanti loo soxla. ñaanti loo soxla. may la ko espace may la ko espace. yow rek la ñu topp yow rek la ñu topp parce que billaay Ousmane Sonko ci dara ngay tey dina Muhammad yàlla nga falu yàlla nga falu yàlla nga falu yi nga xamante ni tey moom mooy tey ba yaay yéen Mbaye ñëw na gis nga waaw sa waay code bi bul ko di joxe. non da nga ko doon ak suñu xaaral rek. boo joxee rek code pro boo dara war boo noppi waay. gars yi gars yi. Thank you. gaz bi ñëw. saa ci bi teg ko ci suuf daal wala moo daañu kenn. boobu la président Ousmane Sonko déggoon di siyaare ji ñu gaz yi. maa ngi leen di gis. taxaw. waaye alma sama mool bi fii ma dégg. Abass. kay gars est-ce que duñu xaar foofu daa mel ni gars yi dem dem dem

ñu ngi fii benn dëkk bu ñu naan Taïba Ndiaye tey ñëwoon président Ousmane Sonko dem bëgg a seeti nga xamante ne ay partisan ñu ne ko foofu mënoo faa nekk waaye li nga xamante ne tey moom mooy kanamam nga xam ne président Ousmane Sonko dafa mën a dafa mujjee wàññeeku comme soo mënta egg foofu mën a xaar ma wàññeeku dem ziare ji li nga xamante ne moom mooy barabu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul mais terewul foofu ba tey daajal nañ ñu ko li nga xamante ni tey moom mooy ay lacrymogène yaakaar naa ne ñun dañoo nekk ci Sénégal mais dañoo mel ni ñi ci dëkk bi parce que yaakaar naa ne lii nga xamante actuellement moom la dund fii ci Sénégal buñ nekkoon ay Malien duñ ko ko dund buñ nekkoon ay Burkinabé duñ ko dund mais comme que ay Sénégalais lañ ñu ngi koy dund yéen a ngi leen di gis ñu ñu ngi noonu a ngi leen ñu ngi noonu di armé xam naa ne comme d'habitude rek dinañu gazé comme d'habitude waaw. ñoo ngeen gis ngeen dispositif sécuritaire bi la euh, ñu ngi nii. te yaayam dee na xam naa ne nag yaayam kon sonn na la tax mu tiit ba ñëw fii ne ñii rey nañ sama yaay kon xam naa ne yaay ji sonn na xam naa ne yaay ji sonn na sonn na daal instant bi nii ci xibaar yi ñu jot mooy tànn nañ la commissaire bi nga xamante ni mooy benn maire doomam nag ñëw na ba ci barab bi jooy na jooy métti ni nan ko wool docteur bu nga xamante ni mën na koo si waañe ñu xam nga xam lan moo ko gisandoo donc ñu ngi nii di replier di ñibbi di ñu dégg Donc, euh, vous les éléments de la gendarmerie. Donc, euh, ils ont interdit le cortège du président Ousmane Sonko de vaquer tranquillement à leur Nemekou tour. On devait passer chez, sur Taïba, mais malheureusement, nous sommes destination parce que la gendarmerie nous nous bloqué avec des échanges de tirs lacrymogènes comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Donc, gazé, nous lacrymogènes. tere nañu ñu egg euh, ci ci ci bërëbu maître même mais quand dem nañ ci bërëbu Serigne Touba bu fi nekk siyaar ko Serigne euh, Ousmane Sonko ñaan ñu ñaanal ko aussi donc comme ni nga ko gisee sànq ci live bi donc situation bi noonu la demee maintenant nag ñu ngi replier wu di ñibbi vous voyez la gendarmerie qui est en train de discuter avec euh, l'avocat nii kenn mënu koo tee dugg Taïba. donc mu ngi noonu mu ngi noonu maintenant on a plus le droit de faire notre nemmeeku tour tranquillement sans pour la gendarmerie vienne disperser la foule parce que loolu la bañ en fait ñuy acclamer le nom du président Ousmane Sonko je pense que loolu la bañ à chaque fois bu amee rek dañuy bëgg di disperser la foule maintenant.

dafa yàkkamti le 25 février 2024 mu dugg ci biir mbañ gàcce yi jël li nga xamante ni tey moom mooy xobu président Ousmane Sonko votel ko moom nee na loolu la yàqam bi nee na sama carte d'identité dama kaa denc bëgguma sax ma xool actuellement yéen a ngi waa Demba Ndiaye ñi ngi dale loolu yëpp ay doomu aadama la ñoom ñëpp dañ leen a dàq ñu jur koy taxaw parce que instant yi nii buñ génnee ci tali bi taxaw rek gendarme yi dañ ñuy gazé looloo tax ñoom tamit ñu bëgg li nga xamante mel ni ndax daa ngeen ko gis ci village yi mel ni Dakar rek la nga doon gis mais fii si Demba Ndiaye li ñu gis moom feebar yëpp ñoom waaw ndax am na ko fi nga mooy si ko fi nga mooy barab Serigne ko yaakaar naa armée Sénégal war na noo xoolaat ñu def ndax lii baaxu démocratie ndax ko ñëpp génn ñëw ba ci grand mosquée bi ñaan soxlaam ñu ko di falu di nekk président kon tey bu ñu ba 2023 Ousmane Sonko ñëw a Taïba Ndiaye da ko war a bàyyi da ko war a bàyyi mu dem xool ñi nga xamante ñoom la war a xool Ousmane Sonko deful lu ñaaw waxul lu ñaaw day waxul kenn man mii léegi laay joog a jot information bi Sonko dina ñëw ndax waxoon nañu Sonko du ñëw kon yaakaar naa kon Taïba Ndiaye kenn xamuloon ni Sonko dina ñëw information boo xam 16 nga ko xam ni day ñëw kon kooku kenn waxu ko mais nag mbooloo mi kenn mënu leen a téye ñoo bëgg Ousmane Sonko te yàlla tax nanu bàyyi Ousmane Sonko Sénégal du ñetti fan Sénégal du ñeenti fan Ablaye Wade moo bàyyi Ablaye moo bàyyi Macky Sall ba mu nekk président man nag na ko bàyyi mu bokk su bokkee rek lépp dina leer jërë ngeen jëf. mais ñemewuñu génn sax fi nga xamante ni tey moom mooy ci kaw tali bi. donc euh, comme ni nga gisandoo. xaaral ñu dem jege oto président Ousmane Sonko. Voilà, comme vous le voyez, les gens sont en train d'acclamer le nom du président Ousmane Sonko. voilà la voiture du président Ousmane Sonko ñoom lii la ñuy bañ lii la ñuy bañ les sympathisants. Vous voyez waaye donc euh, kenn mënut a retenir déjà scandé le nom du président Ousmane Sonko laa ñu ngi nekk di retourné di dem euh, Tivaouane je pense parce que état bu Taïba bi dafa amoon compromis par rapport au gendarmes loolu moo tax ñu replier il faut donner beaucoup de cœur beaucoup de cœur ma yaay nga la taxaw. parce que teewuñ ko waaye. gendarme yaay ñu suñu ginnaaw taxaw. waaw. Sonko Ablaye foo jëm foo yeggee. doole fi nga ah, xamante ni moom fa la waroon a dem ndax barab boo xam ne Sëriñ Tuubaa ah, fanaan na fa ñetti fan ñetti fan la ko Tuubaa fanaan lu ko gudd li ma nee ba ma téeméer at dinaa ñëw feeñ te lu leer nangi lay doon ba ma dee téeméer at ñu dem ba Sëriñ Tuubaa waxoon mu mel ni tey la ba tax di ko président du Sénégal ñëw fi nga xamante ni mooy si barab Sëriñ Tuubaa di nekk adinaar nag di avocat bu mag avocat xeex loolu ba bi ba ki nga xamante ni non soo ko demee sa barab ba ñaata soxla mu mel ni 2011 daloon na Macky Sall mu ñëw fi fi nga ngi noonu ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo di Taïba fi nga xamante ni moom moo di jumaa ji grande mosquée bee nekk nii di leen fàttali nii gazé nañ euh, ñi nga xamante ni euh, moom mooy euh, convoi bi gazé gaze waat ñi ngi ci biir dëkk bi di gazé ak di jàmmarloo ak xale yi pour ñu dégager yoon bi loolu nag gendarmerie moom moo ko def dernière kii bi ngeen gis épisode bi ngeen gis bi moom moo am fii nga xamante ni moom moo di barabu Serigne Touba barabu Serigne Touba ndax ñëw na foofu nekk fa ñetti fan di wéet ak sunu boroom Euh, président Ousmane Sonko jaaroon foofu pour euh, sàkku ñaan waaye ziar itam bërëb bi euh, ci jamono yooyu noonu la ñu gazé waat kon yéen koy gis convoi baa ngi noonu arrêté waat na convoi waat baa ngi noonu arrêté waat na parce que seen élément yi ils veulent coûte que coûte ñun ñu jamono yi nii loolu sax dañ ko fi tere ay yàlla baax na président Ousmane Sonko mu ngi nii ci convoi bi ñu war a regagner li nga xamante ni euh, moom moo di suñu destination waaye di leen fàttali ne fi ñu waroon a tenir la réunion muy bërëb bu privé muy kër gi nga xamante ni euh, maître mooy këram euh, foofu la ñu waroon def jotaay bi comme nemmeeku tuur yëpp fi ñu koy defee ci ay biir kër lañu koy defee foofu dañ ñoo tere ak si foofu dañ koo tere ak foofu yéen a gis askan baa ngi noonu ah xale yaa ngi xale yaa ngi noonu sonko sonko gi jolli waaye xam naa itam ah, léegi lacrymogène yi ñëw ndax ah, daanaka gars yi lii la lii la ñuy bañ waaye ah, ñu ngi progressé tere nañ ñu dugg fi ñu bëggoon a dem fi nga xamante ni moom moo di Taïba fi ñu fa waroon a dem tere nañ ñu fa dugg loolu mooy l'information du jour mooy à tayba la liberté d'expression bien la liberté de réunion bi nga xamante ni moom moom moo moom moo moom moo war a am ci ñi nga xamante ne moo di tous les citoyens sénégalais nga xamante ne euh, président de la république du moom moo ko fi teg waaye constitution moom moo ko fi teg moom moo di la liberté euh, de réunion est garantie par la constitution sénégalaise tey tere nañ ko ki nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko ndax fi mu waroon a dem dañ ko tere aksi fi mu waroon a dem te pourtant ci bërëb bu privé la ci këru jaamur la mu waroon fa ñëw ñu gazé convoi bi ba fi ñu waroon dugg dugguñu ñu ngi nii fi ñuy génnaat dëkk bi ndax ñoom dañ ñoo pousse pour ñu génn dëkk bi fi ñuy génnee dëkk bi foofu la xale yi génnaat encore fëlaat parce que ñoom moom seen dëkk xam nañ fi ñuy génne ñoo génnaat di yuuxu président président yéen a koy seen noonu nit ñaa ngi noonu génn lii la yàlla dogal waaw xale yaa ngi noonu génnaat nañ askan baa ngi ni nit ñaa ngi ni seen kaw terrasse yi yéen a ngi koy xool donte lacrymogène yi tàkk na ñoo ngi seen kaw terrasse yi nekk seen biir kër yi di yuuxu sonko sonko lii la yàlla def lii la yàlla def xaye xam naa ne comme xale yaa ngi nii génnaat nañ waaye yéen a ngi seen noonu girafoire yi mi ngi noonu ci ginnaaw xam naa léegi léegi rek yàggatul léegi lacrymogène yi tàkkaat waaw yéen a xool xale yi ni ñuy di génn di topp convoi bi waaw xale yaa ngi nii ah, gis nga auto gendarmerie mi ngi ne fël na ci angle bi yéen a ngi koy séen fël na ne ci angle bi mi ngi noonu fël na noonu ci angle bi xaaral ñu defaru ndax xam naa ni léegi ñu tiire teewul ma ma defaru. gars yi wax leen oto ñu ko gendarmerie bu ñu jiitu dañoo ñoo bëgg a jiitu gazé ñu jiitoo gazé. ñu ngi noonu oto oto gendarme yaa ngi noonu di jéem a duble booy yi waaye bis bu ñu leen doublé rek euh, ñu dóor lacrymogène yi moom la ñuy xaar xam ngeen di lii doonatul jàmm lacrymogène yi la ñuy xaar waaw ñu ngi noonu dinañ tiire seen oto baa ngi noonu oto oto oto ba baa ngi noonu xale yi may nañ ko mu jàll waaw xale yi may nañ ko mu jàll xam naa yàggatul léegi ñu tiire yàggatul léegi ñu tiire bu ñu àggee fee daal di tiire mi ngi noonu tiire nañ mi ngi noonu tiire nañ tiire nañ tiire nañ oto bi romb bi oto bu romb bi oto bu romb bi moo sànni ay lacrymogène directement ci ci convoi bi oto bi romb bi moo moom moo sànni directement convoi mi ngi noonu gazé waat nañ mi ngi noonu yéenay xool saxaar si saxaar saa ngi noonu et pourtant jamono yi convoi bi day génn Taïba dañoo bëgg a génn dem ñibbi. mi ngi noonu yéen a koy seen noonu dóor nañ ay lacrymogène ah ba ci biir foule bi encore ñu war a euh, te pourtant convoi bi dafay génn convoi bi dafay génn mais euh, dañ ñëw tiirewaat ay lacrymogène yéen a ngi seen noonu seen dispositif seen dispositif baa ngi noonu dispositif baa ngi noonu et pourtant convoi bi dafay génn di dañuy génne nii waaye euh, comme ni ngeen ko gisee rek sànniwaat nañ ay lacrymogène dóoraat nañ ay lacrymogène daanaka ñu ngi koy commencé tàmm waaye lii moo dul yoon parce que la liberté de réunion yéen a ngi dégg lacrymogène yooyu yéen a ngi koy dégg ci son bi ñi ngi continuer di tirer ak xale yi waaw yéen ngi dégg ba léegi ñu ngi gaase parce que tey ñun suñu oto yi suñu oto yi dalee na dalee na suñu oto yi dalee na dalee na jiitu woon ñoom fexe nañ ba jiitu li nga xamante ne tey moom mooy suñu cortège yéen ngi dégg gaz la coromosé ne ñu ngi leen du dóor fiir ci tey ba jaay saa yeneen dégg gaz yi waaw yéen ngi jaay tey mosu koo dund affaire yi saf na sap saf na sap sap sap affaire da koy nooyi benn yoon mu jeex doo doo ko jot voilà donc li nga xamante ne tey moom la ñuy dund ñoom mosuñu ko dund ci seen àdduna man sama bëcc ni muy sottee ko nii baay. mel président mi ngi noonu yéen a ko gis mi ngi nii oto président mi ngi nii yéen ko gis waaye nag metti na lool lool lool lool lool lool li nga xam ni mooy police bi li mu def daal mosul am Sebe Ndiaye waaye nag lii moo lay wan euh, mooy président ndax ko wax nañ mu ni président Ousmane Sonko loolu nag. maa ngi dugg de. le Serigne Abdou Assis euh, Serigne Abdou Assis Dabakh dafa wax Abdoulaye Wade président nag ndax Abdou Diouf foo ko daan mere waaye nag li nga gisee ah gars yi donc euh, comme d'habitude ñun ak lacrymogène yi léegi nous sommes devenus familiers voilà à chaque fois qu'on scande le nom du président Ousmane Sonko à côté il faut s'attendre à ce qu'on gaz des des lacrymogènes et c'est comme ça on est maintenant habitué voilà maintenant ñu ngi ñibbi Taïba ñu jógee gazé nañ ñoo gazé gazé gazé gazé mais bon léegi euh, on est habitué à ça ñu ngi ñuy génn Taïba di dem Tivaouane je pense wala Thiès Ousmane euh. Sonko gerte Sonko gerte Sonko gerte Sonko gerte Sonko gerte. mais mais aéroport ñëwagul de. waaye ba tey bàyyi a ngi dégg noonu parce que mbooloo mi la ñuy topp convoi bi en fait. vraiment li ay visite privée la ci ay kër la ñuy toog waxtaan président Ousmane Sonko saafonte ak ay sympathisants am di leen ay message yoo xamante ni pour ñu comprendre les gens de l'heure maintenant heure bu génnee di dem rek mbooloo mi cofeel bi mu am ci moom dañuy obligé topp convoi bi gendarmerie loolu lay bañ moo tax bu ñu gisee ay groupe de personnes di di scandale noonu président Ousmane Sonko rek dañuy lancer gaz lacrymogène ah. daal di effectué li nga xamante ne moom moo di ziaram euh, gis ngeen tamit euh, li nga xamante ne moom moo di euh, gendarme yi ñoom ñu ngi noonu oto seen oto baa ngi noonu leen jéem a dugg ci li nga xamante ne moom moo di convoi bi alors dugg na donc dugg na alors dugg nañ ci li nga xamante ne moom moo ci bëgg a séparé gis nga gis nga donc gendarmerie ñu ngi noonu voilà ñoom xam naa probablement fii la ñuy yem ah? wàññil wàññil madame Pro ñëwagul de. saa na teggi tànkam tuuti ba ñu xaarale gars yi ñu fee jóge woon na teggi na teggi. sëfoor doo teggi sa tànk ñu xaarale tuuti rek. yow moom xam na lu muy def day communiquer ak ñoom Monsieur Duwaay. ñoom ñoo àndoon. Mbaye waaw. toogal toogal toogal. maa ko ndox maa ko ndox. toogal toogal toogal toogal. maa la ko ndox. off na de booy. oh sa kaam er, er? bi off na de. pause la pause. oui moom sa kaam bi off na dëkk bi waa dëkk bi ba tey ñu ngi topp euh, président Ousmane Sonko ndeysaan amuñu ci moom sago. amuñu ci moom sago ñu leen di gazé lacrymogène ñuy gën a ñëw ñuy gën a bëri. donc vous voyez ce qui se passe actuellement donc euh, euh, président Ousmane Sonko génn dëkk bi tey ba mais ba tey yéen a ngi dégg jeunes yi noonu. ñuy yuuxu mais à côté aussi yéen a ngi dégg les grenades lacrymogènes. yoo xamante ne gendarmerie gendarmerie ñu koy lancé voilà maintenant on va devoir arrêter le live parce que convoi bi génn na maintenant ñu ci yoon bi pour ñibbi Thiès wala Tivaouane je pense wala Thiès voilà donc ñu ngi arrêté live bi donc ñu ngi remercier yéen ñëpp suna voilà donc on arrête le live ba suba ak jàmm incha allah ñu continuer suñu demee ko tour Voilà. Merci à tous.